dal leen ak jamm mbokk yi wax leen asalaamaaleykum damay ñëw rek defal leen analyse match Sénégal contre Gabon ñu do 3-0 nek nekk match bu xamante ne li ñu yàgg kaas pendant des années maanaam Aliou Cissé match amical c'est pour tester de nouveaux joueurs tegal nañu ay nouveaux joueurs yenn nouveaux joueurs yi nak am ñu xamante c'est extraordinaire mu nekk benn système boo xamante bo xol dañuy mel ni dañuy jouer avec trois défenseurs avec deux pistons wala dans yene saa yi sax logeant nga gis parfois aussi dañu mel 4-3-3 donc le même match day animations bi mooy changé mooy football le comportement joueur a des joueurs qui dañuy assimiler parce que seen club xam stratégie méthode yooyu noonu xam donc avec trois défenseurs et tout D'autres joueurs il faut que ñu un comportement bu pour par rapport système bu mais c'est des joueurs professionnels donc pour moi, def le match est Sénégal contre Gabon ñu do 3-0 nek le un match bu a maintenu ñu yàgg casse pendant des années à lui c'est match amical c'est pour tester de nouveaux joueurs tegal nañu ay nouveaux joueurs yenn nouveaux joueurs yi nag am ñu xamante ne c'est extraordinaire mu nekk benn système boo xamante ne boo xoolee dañuy mel ni dañuy jouer avec trois défenseurs avec deux pistons wala dans yenn saa yi dañu sax logeant nga gis parfois aussi dañuy mel ni 4-3-3 nga gis donc le même match day animation bi mooy changé mooy football le comportement joueur bi yenn joueurs yi dañuy assimiler loolu parce que seen club xam nañu stratégie méthode yooyu noonu xam donc avec trois défenseurs et tout d' autres joueurs il faut que ñu am comportement bu bees par rapport ak système bu bees mais c' est des joueurs professionnels donc pour man def nañu le match qu'il faut euh, maintenant euh, Modou Diop du amoo dara looy wax au niveau de la défense il a Abdoulaye Seck capitaine Ismaïla Sarr sax lañ ko joxoon dégg naa Ismaïla Sarr moo ne nañ ko jox ki euh, kii di parce que mooy seen grand frère moom mii di Abdoulaye Seck état d'esprit bu positif lay wane tout le temps en équipe nationale du Sénégal mosul kaas mosul wax dara mais dans ce match quand même am na tuuti difficulté par rapport ak joueurs yu gaaw yu njaxlaf yu ñu ko tegal du côté de l'attaque bu bu Gabon et c'est normal maintenant nag à part ça il a fait son match à côté de ça Seydou Sana fantastique match XXL toj na match bi je comprends mieux lan moo tax Abdou Diallo bi ma paree ak moom interview avant CAN bi mu ne ma booy da leen wax si Sano boy boobu baax na de te Abdou Diallo saay ko xam football bu ne la saay baax na baax na te gisoon nañu ko tamit si u yi xam nañu li mu mën xam nañu ay capacité mais cette fois-ci il a fait un grand match surtout le tackle deuxième mi-temps le tackle boobu mu def xam boobu bii la woon mu ñëw tackle noonu bravo mon frère bravo parce que man au début j'étais pas d'accord noonu noonu et même le match avant classement bi bon Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye laa gisoon parce que dama gis ne non seulement

c'est mieux que Fodé Ballo Touré c'est mieux que en tant que mu ngi xaar Abdoulaye Ndour mais Mikayil Ngor il dafa toj match surtout Bibo Moudouga mu dugal c'est c'est extraordinaire mon frère c'est extraordinaire et comme ni ma wax nekk Barça bee taxut a ñëw équipe nationale du Sénégal certes Wagué doon na def mais Mikayil Ngor c'est encore plus intéressant quoi parce que moi li may que Koulibaly fi ñu ko woowee euh, Barça muy joué di joué ñu koy ma a wax ne Espagne mën nañu woo Mikayil Ngor il a tout le potentiel li nga mën wax si Amara au niveau de l'attaque sénégalais yi yaakaar bi ñu war a mën a am si Amath Diouf mën nañ ko am si Mikayil Ngor Faye booy bi ba bopp bi baax na et que dire de but bi yéen a ngi koy gis noonu mais but bi c'est magnifique mon frère c'est rien à dire quoi rien à dire donc yow moom innocent du Sénégal xam naa di nga ñëw lu bëri donc milieu terrain bi bon j'avais un problème Ismaël Sarr moo joué le trois de droit wala Lamine Camara maintenant li ma mën a wax euh, merci à lui Cissé d'avoir bougé notre saison ñun supporters maçon yi on est foutu ngeen baal ma si terme yi dee nañu ñun waa Marseille parce que Ismaïla Sarr dégg naa day blessé pendant plusieurs semaines lañu wax en espérant que mu bañ a garaaw surtout le match contre Paris Saint-Germain bi xamante ne amoo woon yaakaar noonu mais tu sens que des comme Ismaïla Sarr mën nañu def benn affaire bu xamante voilà mais Ismaïla Sarr man à l'issue déjà match Marseille bokk na si ñuy gën a déployer énergie si cinq victoires yu yu yu ah, euh, yu gasé après avant après ñu am problème yu jeex ñu door ñu Europa ren ñu dóoraat ñu 2 h donc il est usé dafa sonn donc match bi gis woon sax mu joué dafa fatigué xam entre Europa championnat voilà ce match là def na match am Lamine Camara raté na ñaari occasion yu doy waar Lamine Camara benn bi day passe Bamba Dieng da kay dóor mu dugg beneen bi yow kese qu'est-ce qui se passe mon frère donte nag bii premier bi kon son camp ci yow la jógee tiré gardien bi joxe bal bi ñooy dugal sen camp mais mon frère faut faut mettre les buts faut mettre les buts donc euh, à part ça là laa gën a noté ak bii bi andi na mu joge ci mom donc keneen ki xamante ne joué na c'était participe bi xamante c'est très serein li sénégalais li ñu ko yag yag li ñu ko lag yag lag autant pour moi j'ai simple j'ai comme Nampalys minutes récupération joxe récupération joxe on voit vite transition rapide parce qu'il casse les lignes transition rapide xam rien à dire donc sentinelle moom sax parfois as l'impression que tu sax de le système au niveau de Côte d'Ivoire un peu plus bas que trois défenseurs entre Seydou Sano euh, Abdoulaye que l'impression que y trois défenseurs ça da avec des pistons moi animation deux milieux Sénégalais ils souvent da et Pape Matassa donc Pamata Sarr ultime a été très bien surtout dur sur l'homme même dans Lemina xam na ne Lemina football la Juve football ne actuellement moom ngi Wolverhampton xam na Premier League c' est des joueurs yu xamante ne dañ leen di ko door a coincé te boo leen tëjee rek la bataille du milieu après waa Gabon dañuy am problème donc euh, amuñu benn Aubameyang boo xam ne dañuy def appel yi donc tëj nga kii di euh, seen seen Lemina euh, mooy loolu donc Pamata Sarr sur sur ce point pour man positif au niveau de l' attaque on avait qui on avait Iliman comme numéro 10 bi xamante ne tantôt sax da ngay gis puis en bas moi moi moo tax ne partie 6 t'as l'impression que day nekk day dem nekk trois défenseurs et que boobaa noo gis ben iman Ndiaye mu coulissé bu baax a baax dem ba dugg ci milieu terrain donc ça permettait de mettre de la lumière dans le jeu donc de nekk ben électron libre bu xamante ne mën ne passer fu ko neex mën dépendre de gauche à droite il était partout même si esthétiquement parlant les derniers gestes def ko amna passe bu mu passe foofu amna am ñaari passe def naa passe bu rafet kooku jàkkaarloo kan si je me trompe pas c'était Lamine caméra moi bu Lamine caméra bi xaw ma ban jour mom kasse passe bu nice bu Iliman Ndiaye donc sous ce registre j'aime bien Iliman parce que day autour de Nicolas Jackson mais c'est quoi le problème avec Nicolas Jackson en équipe du Sénégal je vois que ça ne passe pas on a tout essayé man mi dama ne moo war nek nekk suñu titulaire force de constater que c'est compliqué mom nak dafa def un peu impression de Diagne donc euh, à chaque fois c'est que compliqué là? mais dans voilà c'est compliqué pour pour Jackson lol dans la mën wax Jackson donc lii mooy équipe bi maintenant Aliou Cissé bu la tegalee nga kontaan bu la changé nga doyal loolu Aliou Cissé depuis qu'il est là à chaque fois bu classé t'es content de nga voilà pourquoi pas mais quand il met le changement fallait nous mettre Amara Diouf saa yi Amadou Amara Diouf grawul quoi Sadio Mané dougal na biyam yokk na euh, euh, xam naa ne histoire meilleur buteur équipe nationale du Sénégal mais fallait nous mettre Amara Diouf mais bon Sadio Mané à part le but dis-moi, Sadio Mané lu bari gars ça à part le but même si c'était en deuxième mi-temps Habib Diallo pour man Amara Diouf moo doon dugal donte Habib Diallo def na passe passe décisive am bu laajee aussi moom moo passe kii di euh, Lamine Camara mu raté mais je euh, test quoi xam nga xam nga mais bu laajee peut être gëj na ci nationalité mais Habib Diallo donc moo ko doon nekk Coupe d' yàggul mën nga teg Amara Diouf mu wane boppam mu bëggal Sénégalais yi lolu la mën wax ci équipe nationale du Sénégal donc les changements daal c'est c'est ça qui complique. compliqué à l'UCG à chaque fois que mu def benn système bu changé da ngay doyal donc eh, les rentrées de Habib Diarra comme piston j'ai pas compris ce poste là Habib Diarra loolu poste là mënul wane lii di nelaw dëgg ci moom daf may rappelé un peu le match le premier match de je comprends mieux lan moo tax Abdou Diallo bi ma paree ak moom interview avant quand bi mënuma booy De leen wax ci sano boy boobu baax na de te Abdou Diallo saay ko xam football bu ne la say baax na rek baax na te gisoon nañu ko tamit si U20 xam nañu li mu mën xam nañu ay capacité mais cette fois ci il a fait un grand match surtout le tackle deuxième mi-temps bi tackle bobu mu def xamul bobu bi la won mu ñëw tagalé nonu bravo mon frère bravo parce que man au début j'étais pas d'accord non, non. et même le match avant classement bi donc Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye la gisoon parce que dama gis né non seulement au niveau de Coupe d'Afrique propre rapport ak hiérarchie peut-être que moo doon toog tribune mais Abdoulaye kii néew fii Tego Koulibaly Tego nan la ñu koy waxatee Niakhate beneen Moussa Niakhate donc Abdoulaye Niakhate Ndiaye dans la hiérarchie moo war a ñëw donte Arona Sangate jouer mais presque dafa forfait la ñu wax donc loolu la ñu wax au niveau de la défense donc c'est un très très bon match l'autre joueur bi nga xamante ne moo match bi je pense que signé na ñëw mi mu Sénégal tout le temps c'est c'est Mikayil Ngor Faye waxuma la biyam sax mais au niveau poste latéral gauche c'est mieux que Fodou Ballo Touré c'est mieux que en tant que ñu ngi xaar Abdoulaye Ndour ñëw mais Mikayil Ngor Faye dafa toj match bi surtout bii boobu mu dugal c'est c'est extraordinaire mon frère c'est extraordinaire et comme ni ma wax nekk Barça bee taxut a ñëw équipe nationale du Sénégal C'est, c'est Wagué doon na def loolu mais Mikayil Ngor Faye c'est encore plus intéressant quoi parce que mooy li may wax rek Koulibaly fi ñu ko woowee euh, Barça muy joué di joué ñu koy ma war wax ne Espagne mën nañu woo Mikayil Ngor Faye il a tout le potentiel li nga mën a wax si Amara au niveau de l'attaque Sénégalais yi yaakaar bi ñu war a mën a am si amar Diouf mën nañu ko am si Michel Ngor Faye booy bi baax bi baax na et que dire de bii bi yéen a ngi koy gis noonu mais bii bi c' est magnifique mon frère c' est rien à dire quoi rien à dire donc yow moom innocent du Sénégal xam naa di nga ñëw lu bëri. donc milieu terrain bi bon j' avais un problème Ismaël Sarr moo joué le trois le latéral droit wala Lamine Camara maintenant li ma mën a wax. Euh, merci à lui d'avoir bougé notre saison. Nous, nous supportons les On est foutus. Nous sommes terminés. dee nañu ñun waa Marseille parce que Ismaïla Sarr dégg naa day blessé pendant plusieurs semaines lañu wax en espérant que mu bañ a garaaw surtout le match contre Paris Saint-Germain bi xamante ne amoo woon yaakaar noonu mais tu sens que des comme Ismaïla Sarr mën nañu def benn affaire bu xamante voilà mais Ismaïla Sarr man Aliou Cissé déjà parce que Ismaïla Sarr dafa usé du côté de Marseille bokk na si ñuy gën a déployer énergie si cinq victoires yu yu yu ah, euh, ren ñëw dóoraat ñu 2 h donc il est usé dafa sonn donc match bi gis mon sax mu joué dafa fatigué xam nga entre Europa championnat voilà sa match là def na match am Lamine Camara raté na ñaari occasion yu doy war Lamine Camara benn bi day passe Bamba ñé da koy dóor mu dugg beneen yow kese qu'est-ce qui se passe mon frère donte nag bii premier bi kon son camp ci wala la ya tiré gardien bi joxé bal bi ñooñu dugal sen camp mais mon frère faut ma fait faut mettre les buts faut mettre les buts donc euh, à part ça loolu la gën noté ak bi bi xamanténi ne andi na ko mu jóge ci mom donc keneen ki nga xamante ne jeune c'était parti bi nga xamante ne c'est très serein li Sénégalais li ñu ko yàgg yàgg li ñu ko làgg yàgg laaj autant pour moi jeu simple jeu comme Nampalys Mendy récupération joxe récupération joxe on voit vite transition rapide parce qu'il casse les lignes transition rapide je rien à dire donc sentinelle moom sax parfois t'as l'impression que ne sax Aliou Cissé dafa andiwaat le système bi mu andi woon fële ne au niveau de Côte d'Ivoire day nekk un peu plus bas nekk trois défenseurs entre Seydou Sano euh, Abdoulaye Seck moom mu si digg donc t'as l'impression que da am trois défenseurs ça da ngay jouer avec des pistons Moi tax ma animation boobaa da am deux milieux terrain yi Sénégalais yi doon bañ souvent da ngay gis ne kii moo fay coucher Lamine Camara et Pape Matassa. donc Pape Matassa a été très bien surtout Dieu sur l'homme Même dara Lemina xam na ne Lemina football la Juve football ne actuellement moo ngi Wolverhampton xam na Premier League c'est des joueurs yu xam ne da nga ko coincé te bo len tejé rek la bataille du milieu après wa gamon dañuy am problème donc amuñu ben obama bo xamanteni def appel yi donc tej nga ki di sen sen lamina moy lo donc mata sa sur ce point pour man positif au niveau de l'attaque on avait qui on avait Limandia comme numéro 10 bi xamanteni tantôt sa da ngay gis puis en bas moi moi moi tax partie t'as l'impression que day des day dem nekk trois défenseurs et que boobaa noo gis benn Iliman Ndiaye mu coulisser bu baax a baax dem ba dugg ci milieu terrain donc ça permet de mettre de la lumière dans le jeu donc dafa nekk ben électron libre bu xamante ne mën na passer fu ko neex mën dépendre de gauche à droite il était partout même si excessivement parlant les derniers gestes def ko amener passe bu mu passe foofu amener am ñaari passe def passe bu rafet kooku j'ai kan si je me trompe pas fait la Camara mooy bu Lamine Camara bi xaw ma jour moom kasse passe bu nage bi bu Iliman donc sous ce registre j'aime bien Iliman parce que day nek autour de Nicolas Jackson mais c'est quoi le problème avec Nicolas Jackson en équipe du Sénégal je vois que ça ne passe pas on a tout essayé man mi dama ne war a tout suñu force de constater que c'est compliqué Je me suis fait def un peu impression bay Diagne donc euh, à chaque fois c'est compliqué mais dal voilà c'est compliqué pour pour Jackson loolu daal laa mën a wax Jackson donc lii mooy équipe bi maintenant Aliou Cissé bu la tegalee nga kontaan bu la changé lee nga doyal loolu mooy Aliou Cissé depuis qu'il est là à chaque fois bu classé t' es content da nga naan voilà pourquoi pas mais quand il met le changement fallait nous mettre Amara Diouf saa yi dugal Amara Diouf garaawul quoi Sadio Mané dugal na biyam yokk na euh, euh, xam naa ne si histoire bi meilleur buteur équipe du Sénégal mais fallait nous mettre Amara Diouf mais bon Sadio Mané à part le but gisuma Sadio Mané lu bari gars yi à part le but même si c' en deuxième mi-temps Habib Diallo pour man Amara Diouf moo woon dugal donte Habib Diallo def na passe passe décisive am Boulaye aussi moom moo passe kii di euh, Lamine Camara mu raté mais je voyais am euh, Amara Diouf quand même rentré c' est des matchs test quoi xam nga xam nga mais Boulaye peut être gëj na comme solution mais Habib Diallo donc moo fa doon nekk Coupe d' Afrique yàggul mën nga teg Amara Diouf mu wane boppam mu bëggal Sénégalais donc. lolu la mën wax ci équipe nationale du Sénégal donc les changements daal c'est c'est ça qui complique à Aliou à chaque fois que mu def système bu changer da ngay doyal donc eh, les rentrées de Habib Diarra comme piston j'ai pas compris ce poste là Habib Diarra lolu poste là mënul woné li nii dina deug ci mom daf may rappeler un peu le match le premier match de qui euh, ni ñu koy waxatee de de de de qui euh, may fàttali Sima mu nekkoon di toj euh, République tchèque championnat Alusi ci c'était kon moy suñu suñu mas bu ñu kon histoire tane start la diol ties ba kuyaat mas bi dem ba jeex kuyaat dugul mo ne ko premier mas tim seen jeex mu tek xam piston xam après sénégal bi xamantene xamul abou diara malheureusement day ñew sénégal dafa tok ci sa ak ki lay gis tank ki ñu wax alors que c'est pas son poste mo tax rat na ay passe yu bari et tout et aussi tamit le j'ai bien aimé aussi la rentrée de jeune bi bi def passe bu nice jël bi passe bu xamantene ne euh, xam voilà rien à dire moom aussi même si il peut faire mieux donc faut saisir ta chance jël bi à chaque fois que ñu joxe sa chance on sent que da ngay tënk sa bopp da ngay yewul tekkiwul mel ni Mikayil Ngor Faye def mel ni Lamine Camara en Coupe d'Afrique tekki sa bopp joue libre boo neuf di jouer di xam nga di yéexantu mën na compliqué pour yow donc lâche bail affaire yi mu dem quoi donc l'autre qui qui a rentré c'est c'est Jacobs donc à part ça man pour man on peut être content on peut être content Le moo tax da ngay gis Bolivie 3-0 lañ ko dóor Algérie y a ngandi problème pour gagner Bolivie 3-2 la ko je si me trompe pas waa Maroc contre Angola 1-0 Angola contre son camp donc nous, on on ñoo ngi gagné match même si est parfait mais il faut gagner les matchs donc c'est victoire c'est ça qui est intéressant loolu laa mën noter comme comme analyse débrief si seen match Sénégal euh, contre Gabon bàyyi leen ci commentaire ngeen wax seen xalaat ak seen wax leen ne sama ay top sama premier top c' est Mikel Ngor Fay deuxième top Seydou Sano le troisième dama koy bàyyi ci commentaire ngeen wax si seen xalaat kan mooy seen meilleur top si seen um, troisième top entre euh, bu ma waxee Seydou Sano ak Mikel Ngor Fay kan moo war a nekk troisième ci commentaire wax leen ma ko mbokk yi jaajëfal naa leen bu baax wax leen ba beneen sous seen football TV.